فزت بزار في الحسنات سيدة لمسينات مريم suñu mbokki jàngalekat yi nga xam ne muy góor ñi ak jigéen ñi ñoom ñoo waral lii lépp di nuyu ñi nga xam ne ñooy liggéey ci daara ji ñëpp ak maam jaare ci seen bopp di leen ndokkeel ci bis bi di ci sant yàlla bu baax ndax moom moo ñu may kàttanal ñu ba ñu tàmbali atum njàng mi ci jàmm ba jeexal ko ci jàmm ñu di ci sant suñ borom subhaanahu wa bu baax a baax bu loolu jàllee dañoo xaw a yéex a tàmbali programme bi waaye solo si rek mooy daanaka foo dem ci réew mi moo xam école tubaab la wala daara alquran la at mi suy jeex danañ wut bis boo xam ne dañ koy taxawal ngir bégal ci gone yi waaye sargal ci ñi nga xam ne ñoo jiitu ñi gën a jàmbaare ci njàng mi ak ñi gën a jàmbaare ci yar bi ñu jox leen ay neexal defal leen ay tiraanga tamit bégal leen ci suñu façon maanaam façon bu diinee kon loolu ci la bokk ñu tàmbali dugg ci programme bi rek kon ci li gàttal ay aayaat rek suñ noppee kàddu ubbite gi nag man damay wax programme bi rek suñ Abdoulaye Joxumpa mi moo koy def قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين sadaqallahul azim mbokki jullit yi asalaamualeykum noo ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew kilifa yi fi teew góor ñi ak jigéen ñi ñu ngi nuyu xale yi soxna jaare yi di sant sunu boroom subhaanahu wa taala mi nga xam ne moonu may nu fekkewaat jataay bi waxtu wi bis bi am na ñu mu ko xañ ñoo xam ne yàlla xañ na leen fekkewuñu at mi du seenu ñàkk ko bëgg a fekke waaye yàlla mi not ci kaw lépp moo tërale noonu mbiram am na ñu mu may ñu fekke ko waaye mayu leen ñu tal ko kon nun ñi nga xam ne sunu boroom may nanu nu fekkewaat at mi fekkewaat bis bi may nu tal gi cant ga ca war dëgg lottu nañ sunu digg ak moom ci sant ko wa ma qadarullaha xaqa qadri kon cant gi yéene lay doon ci sunu biiri xol yàlla mi nga xam ne amul kumpa ci dara xam ne sant nanu gërëm nanu ñuy fàttaliku fàttaliku bu sori ci sunu gannaaw ba egsi ci jataay bi fàttaliku jëmm ju baax ji nga xam ne sunu boroom dogal na xayriyatu bi ma wax léegi ci man taallama alqur'ana xayrukum man taallama alqur'ana wa allama te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ko mooy ki gën ci yéen ñépp mooy ki xam alxuraan ba noppi wëlbatiku di ko xamle dafa mel ne loolu su ko waxee mënees na koo firi ci jataay bi ci xamlekat yi fi nekk muy xamlekat yu góor yi ak xamlekat yu jigéen ñi kenn du leen ca jiitu waaye mel na ne ñoom ñëpp bu ñu leen boolee muy yiw wu ñuy séddale xayriyatu boobu ka leen ca ëpple mooy cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo samp barab bi ñu di ko fàttaliku kon di ñaan sunu boroom mu yokk ko ay leer te tas ñu ci barkeem moom ña ma fa bokkal nekk. bàyyi fi Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñu ko wuutu ci liggéey bi yàggal ko fi lool yokk ko ak wér bàyyi koo kom xelam ba mu am xol bu sedd lool ci njaboot gi noo ngi fàttaliku ci ay ñaan di leen ñaan kenn ku ne teewal xolam ci digganteem ak boroomam ñaan suñ boroom yokk leer ñu ñu bokkaloon liggéey bi te nu dëddu bu yàggul tàmbalee ko ci soxna Ayda Njaay Badaloo sëriñ Malick Fall Ibra Mbay sun boroom yokk leen yërmande yokk leen yi leer fa ñu tëdd te taas ñu ci seen barke te sun boroom nangul leen seenub liggéey ci barkeb sëñ Tuubaa lépp loo xam ne rëcc rëccub jaam bi la ci digganteem ak boroomam xaj na ci biir yërmande yi sun borom ko allahuma maxfiratuka awsau min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali kon yàlla na suñ boroom nangu suñuy ñaan ci ñoom te yokk seeni leer yokk leen barke yokk leen yërmande boole leen ko ak mbooleem jullit bu ñu fa fekk ak mbooleem jullit bu leen fa war a fekk kàddu yi soxna maam awa santunu xam naa daf noo bett kaddu ndigal la ndax man dama guddee egsi bi ci guddi suba rek la ne ma faw nga sànni ay kàddu waaye gannaaw ndigal la mënuma koo ñàkk bañ a jëfe daf ma bett waaye ginnaaw lu ma bett la nag lu damm ci kàddu yi rek nañ ma ko jéggal te xam ne bett gu ma bett tax ñu digal ma ko suñu ma ko ñàkk bañ a def kàddu yi gàtt la nun ñi nga xam ne yàlla dogal na nu ne ci barab bi de passage maa ngi sant maa ngi nuyu bu baax docteur ja ak équipe am di ko siyaare bu baax a baax ci taxawaayam ak yitteem ci ci barab bi ak mbooleem rek koo xam ne yaa ngi yëngu ci daara ji jërut ñu di leen lim ndax daara ji moom famille moo fi nekk famille boo xam ne ni ma ko waxee léegi li gën ci lañ nekk ndax waxi yonent bi alayhi salaatu wasalaam la te wa maa yantiqu anil hawa wax mukk ngir bànneex te nee na ki gën ci yéen mooy ki xam alquran ba noppi wëlbati ko di ko xamle loolu cheikhul xadim ridwanullahi taala alayhi wax na ko fu nekk ci yiw wi nga xam ne nekk na ci ñooñ alxuraan maanaa ñiy jàngale alxuraan ak sax ba ci ñi ñuy jàngal alxuraan ndax téere boo xam ne teddaay bi àgg na ci su xale yoroon alluwa ñu bindal ko ci baasin mii mu bokk alluwa ji di dox ci armeel ba romb ku ñuy mbugal ci biir bàmmeel bi suñ borom dana tëye mbugal ma ngir xale boobu yi traversé teñ dalal ko alxuraan loolu yiw yi kenn xamul fu mu yam kudul dul borom subhaanahu wa taala kon nun nu xam ne lii nu nekk addina kenn mënu fee nekk ak lu xëy leen man kaana yuridu xarsa laaxirati nazid lahu fi xarsihi wa man kaana yuridu xarsa dunia nag nuutihi minha wa ma lahu fi laaxirati min nasib waliyaasu billah kon nun li nu nekk moo gën ci li nit di nekk moo gënal sunu borom subhanahu wa taala moo gënal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moo ko wax xayrukum man taallama alqurana wa allama moo gënal cheikhul xadim kon defe naa ne dana jaar ñu gën a ànd gën a boole suñu xol ngir yàlla gën a yéeneente lu baax gën a yërëmante gën a wormaalante kenn ku nekk tàllal sa xol sa diggante ak sa borom ci sa morom xam na yàlla noppi na ci noonu te li gën lanu suñ borom faggul ci la ñuy xëy guddi ci la ñuy xëy bëccëg li ñu dut gisante ñaari weer lay doon ci at mi waaye li ci des lépp noo koy bokk nekk ci ci benn maydaan boo xam ne fi lañuy ñuy daje guddi fi la ñuy daje bëccëg di gisante waxtu wu nekk loolu yaakaar naa ne buñ ko boolee ci liggéey bii nuy def dana nu may ñu résultat bu nu am tey ren boo liggéey mën na noo séentu bu ko ëpp ndax li ñuy wax al ittihaad quwa bu nu booloo nekk benn loolu sunu doole lay yokk te bu yokkee sunu doole lépp lu nu bëgg a samp ci lu baax danañ ko samp lépp lu nu bëgg a def danañ ko def te danañ ci dajeeg tawféexi sunu boroom ak ngërëmam beneen bi ci des ma tëje ko mooy ci gone yi yéen ci seen bopp barab a ngi boo xam ne barab bu dumóoyu la boroom sanc ko muy barab bu du mooyu seeni way jur yéen wóolu sëriñ bi joxe leen ñu indi leen fi sëriñ bi jël matuwaay yépp tegal leen ñi leen di toggal ñi leen di fóotal ñi leen di baleel ñi leen di faj garab yi ngeen di fajoo lépp sëriñ bi teg ko ci seeni loxo ngir lan benn xedef mooy ngir ngeen jàng alxuraan xam ko jàng diine xam ko jàng xam-xamu àddina am ko jàng mécc am su ngeen génnee ëllëg fu ngeen dem ci àddina tas fa loola muy lu baax loo xam ne fii lay tàmbalee di wéy ba daj àddina bépp kon loolu am ngeen ci wàll mooy na ngeen góor góor lu sagal ñii leen yor doon leen jàngal at mi juróom-ñeenti weer yépp ñu yor leen ko di leen jàngal ba am lu ñu def ci yéen bu ngeen demee ñibbi ci vacances yi ñaari weer képp na ngeen bàyyi xel ne moom ngeen fayal ñaari weer ñaari weer yooyu na ngeen góorlu ci yor seeni téere di nafar li ngeen jàngoor ba bu ngeen dikkaatee fii loola doon ak yombal ci yéen ci li leen dese ngeen mën koo gaaw a xam ndax fi ne bu ngeen demee topp télé ya ñu ne leen nga dégg ko am maam am yaayu maam jaara mu ñu la maam jaara yow nga xam nga wiir wiire fekk yow kaay seetaan wiir wiir yi jubluwu ci dara waaye dafa am ci yow bëgg am ci yow cofeel namm la nela la kaay seetaan wiir wiir yi euh, kaay seetaan novella kaay seetaan nangam nga ñëw moom lam ci jublu mooy lu la neex yow waaye yow nag yow maam jaara mi nanga jëfandikoo sam xel ci ne am na lu la fi xaar ñaari weer kepp nga fiy def soo demee kat sëñ Moussa ña nga lay xaar ci li nga jàngoon fii te mokkaloon ko tari woon ko ci kanamam ñu ñu yebal la nga dem ci say bokk di kaat boo ko fëttee da nga indi da nga ko indil fitna da nga ko indil sa bopp loolu na ngeen ko xam bu baax a baax a baax kon na ngeen góorlu ci loolu te xam ko te jàpp ko te xam ne ñaari weer képp ngeen di def seen kër dëkku leen seen kër fii ngeen dëkk juróom-ñeenti weer yi ci des yëpp fii ngeen koy def kon góorgóorlu leen ci nafar seeni téere di jàng guddeeg bëccëg loolu seenum noof laay lay doon bu leen topp pama bi ci des mooy am na ñu ngeen fa bàyyi woon ñëw ñu am lu ñu xool ci yéen mooy maam jaara jël nañ ko yóbbu nañ ko daara maam jaara lu ñu koy def dañ koy jàngaleel xuraan lu ñu koy def dañ koy yar nga ñibbisi ci kër gi maam jaare ma nga fa bàyyi woon di la seetlu wala sax wala sax mbokkam di la seetlu yaayi kooka ka nga xam ne doomam ñëwut woon ci daara ji di xool doom yi soxna maam jaare mii doom yi maam jaare mii demoon ca daara ja maam jaare mii demoon ca daara ja diwa ko jur naa xool doomam ja lu mu fa jëlee bu ko defee ab yar la ñuy xool ci yow ay teggin lañuy xool ci yow melowu rafet la ñuy xool ci yow sagalal daara ji ba nañ ko gis ci yow ña nga fa bàyyi tey say mbokk nañu gis loolu ci yow loolu dana taaral daara ji dana yokk daara ji ab dégg-dégg dana tax keneen ku xemmeemul woon daara ji xemmeem ko ku ko daan dégg te mosu koo xam da nga tax mu am lu mu xamee ca daara kon kàddu yi sëñ mu gudd gàtt kàddu yooyu rek la woon yàlla na nu suñ borom mi nga xam ne dara tawu ko ci mbaaxam ak yërmandeem ak ngëneelam jëflanteeg ñun ci ay ngëneelam ak i mbaaxam ba yàlla fekkeloowaat nu nun ñëpp at mi kenn ci nun bana man bañ a manqué suñ borom yokk suñ xéewal bu baax a baax yokk suñu wér ci barkeb jëmm yu tedd yi nga xam ne ñoo amal barab bii bi jaahi xaadimi rasuli wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aawuzu billahi mina shaytaani rajiim. bismillahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu ala ashrafil xalq. sayyidina wa mawlaana muhammadin. wa ala aalihi wa asxaabihi wa man tabi'ahum واقتفى آثارهم إلى يوم البعث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السيد المدير العام السيدة مديرة الدراسات السيد المساعد البيداغوجي السيد المراقب العام أعضاء الإدارة العامة جميعا السادة المعلمين والمعلمات الحضور الكريم زميلاتنا الطالبات باسمي كممثلة لجميع طالبات المدرسة أتشرف أن أقف أمام هذا الحضور الكريم قائلة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنه لشرف عظيم أن نرحب بكم في ساحة المدرسة madrasati Mame Diarra Bousso bi munasabati xafli tawzi'il jawaa'iz li taalibaatil mutafawwiqaat wallati tunazzimuha al idaaratu kulla sana fa ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadin bi haadihi al munasaba nuwajjihu kalimaati shukrin من صميم قلوبنا إلى أعضاء الإدارة والمعلمين والمعلمات الذين قد بذلوا جهدا كبيرا في تحفيظنا كتاب الله وتعليمنا العلوم الشرعية والمهنية وتربيتنا تربية إسلامية مريدية صالحة حتى أصبحنا قدوات يرضى عنا آباؤنا وأمهاتنا فشكرا لكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء ننتهز هذه الفرصة ندعو للشيخ محمد المصطفى بشير مبكي الذي أسس هذه المدرسة تغمده الله بواسع رحمته في جنة الفردوس وأطال بقاء خليفته الشيخ منتقى مبكي الخليفة العام للمريدية وكذلك ندعو للأخوين المرحومين مالك فال وإبراهيم مبي اللذين قد خدما وتعبا للمدرسة حتى وافتهما المنية غفر الله لهما وأسكنهما الجنة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه wa fil xitaam ansaxu zamilaati taalibaati bil muraajaati athnaa al utla wa bit tamassuki bil axlaaqi al faadila allati turabbina biha huna fi Porokhane linattamassak bi diinina al islaami tamassukan qawiyan wal naqtadi bi qudwaatina saalihaati amthaal samiyatina Soxna Jaara Buso allati qad kaanat qudwatan salihatan fi l axlaaqi alfaadila zamilaati talibat innana fi asrin taqaddamat fihi teknolojiya fa asbaha telefon wal ittisaalu bil internet shay'an daruriyan inda ammati nnaasi wa xassatan alfatayaat zamilaati talibat inna alfacebook wal whatsapp والتلغرام وما شابهها لكل منها أضرار ومنافع فلنجتنبها أثناء العطلة ولنراجع دروسنا مراجعة تجعلنا على أتم استعداد في العام المقبل إن شاء الله أتمنى لكن عطلة سعيدة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 di am mbégte lool di taxaw ci seen kanam ci jotaay bu tedd bii di leen nuyu di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci nuyoo bi sëriñ aboo madiyana jaxate mi njiitul daara ji ak soxna maa xewa dem mi yor njàng mi ak sëriñ aafiyatu ñang mi saytu njàng mi ak sëriñ Abdullahi Jaxumpa mi saytu yar bi ak jàngalekat yu góor yi ak ñu jigéen ñi ak mboolem ñuy liggéey ci daara ji ak mam jaara yépp ak ñi fi teew am nañ mbégte mu rëy di leen dalal ci ëtt daara ji di daaray mam jaara buso ci xew-xew bii nga xam ni dañ ciy neexal élèves yi gën a ràññeeku ci seeni classe ci jàng mi ak ci yar bi muy xew-xew bi nga xam ni idaara ñoo koy taxawal at mu jot ginnaaw loolu ñi ngiy jëmale kàddu yi cant muy bàyyikoo ci sunuy xol mu jëm ci kilifay daara ji ak jàngalekat yu góor yi ak ñu jigéen ñi ñi nga xam ni sonn nañ lool ci sunuk mokkal alquran ak jàngal ñu xam-xamu diine ak métier yaruñ yaru lislaam yarub taalibe bañ ñekk ay royteef yoo xam ni sunuy wayjur danañ bég ci ñun kon yàlla na yàlla fay leen ngën gi fay dunu fàtte mukk di ñaanal sëriñ Moustapha Bachiru Mbàkke mi sos daara ji yàlla na yàlla dëkkal ko ci àjjanay firdawsi te yàggal fi sëriñ Muntaxa xalifa général ji murid ñi ngi ñaanal itam Malick Fall ak Ibrahima Mbay ñi nga xam ni dañ doon liggéeyal daara ji ba yàlla dogal ñu jiituñu yàlla na yàlla jéggal leen te tàbbal leen àjjana ci barkeb sëriñ Tuubaa fii may jeexalee maa ngi laabiire sama mbokki mam jaare yi ñuy nafar ci biir vacances bi tey sàmmonteeg jikko yi tedd yi yi nga xam ni moom lañ ñuy yaree ci daara ji tey roy jigéen ñu baax ñi ku mel ni sunu turandoo soxna jaara buso mi nga xam ni nekkoon na royteef bu baax ci jikkoy tedd yi yéen sama mbokke élèves yi nañ xam ni ñi ngi ci jamono joo xam ne technologie amaase na ci lool téléphone ak internet dem ba mel ni lu mënta ñàkk ci nit ñi rawatina jigéen ñi yéen sama mbokki élèves yi na ngeen xam ne Facebook WhatsApp Telegram ak yu mel ni ñoom am na ay aki ak njariñ kon nag bu ñu demee ci vacances bi nan koy wattandiku tey nafar nafar goo xam ni dina tax ñu mën a waajal at mii di allah maa ngi leen di ñaanal vacances gu neex te ànd ak xéewal wassalaamu aleykum moom kersa. wa huwa al axlaaqu rafia. moom kersa nag bokk na ci jikko yu màgg yu yëkkatiku yi. allati amara biha al islaam. islaam moo ñu ko digal. al xayaa. kersa nag. huwa alladi yumayyidu bihi al mar'atu al muslimatu an gayriha الحياء ضرورة في حياة المرأة المسلمة قال عالم من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه لبس المرأة يجب أن يغطي عورتها وأن يكون قد قاضا وأن يكون كثيفا نظرة ثم ابتسام ثم كلام ثم موعد ثم لقاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء